bi jigéen bi liggéey sax toujours daf koy indi ci këram société du spectacle wax naa ci sama biir développement ci introduction bi ne des fois nga gis ku liggéey di ñëw ci kër gi te amul fi njariñ mbaa njariñam bariwul sa am hmm. ça passe inaperçu ci kër gi su ko weesee peut-être te li war jigéen mooy ki ci kër gi di liggéey yaa ko war a fay parce que yow la waroon c'est ça ton hmm. devoir de femme ci yow la bokk dégguma yaay. Mm-hmm. man ni jigéen bi ñëw ci kër di sëy waaw jëkkëram indi ko fi yor ko. waaw ki mu indi ci kër gi mi na daan doole bi ko war a jàppale. Mm-hmm. yow yaa ko war a fay. maanaam maanaam entre guillemets bon bi yow jigéen bi liggéey. yow yaa ko war a fay parce que tâche ménagère yi yaa ko waroon def. yaa ko waroon def ah, mais jigéen su fekkee te hmm? waaw d' accord waaw mais. mais dama damay d' accord na man damay développé man man sama xalaat. j'ai dit waaw man sama xalaat laa wax. mata la femme doit être <laughs> entretenu mais yow lan mooy sa devoir ci kër gi. jigéen ñi nooy gérer. bale mooy raxas. bale ah ku la koy defal. Ah mais c' est pas c' est pas obligatoire. non non Sénégal lañ nekk di wax ah. mais xam nga ñun nit. si on le rôle de la femme à des mhm. tâches par exemple yow tey sànq dafa ne. Euh, ki nga xam ne moom moo la war a dundal. <laughs> moo la war a dëkkoo. moo la ci kër gi dan la war a moo la war a defaral moo war a joxe dépense. suy joxe dépense kay jabar jee war a togg. kuy togg. mais c'est jabar ji mënul togg kay dafa jox bon bi mu togg. na fay bon bi moom mi ngi liggéey. waa Mata. yow mi toog ci kër gi opté pour togg yar say doom. su ñu indee dépense jox ko ku koy togg. tey ngi booy. mais est-ce qu'une femme buy sëy waaw dafa war a coûte ko coûte certes waaw togg too kër geeg affaire yëpp je suis mais bu amee ku ko koy defal waaw mu ah, ko boppam pourquoi mu koy te góor gi moo ko war a waaye bu ko am muy liggéey mu ngi liggéey waaw ma ngi leen posé question mais liggéey ci kër gi tâche dama bëgg may mar may su fekkente ni yow yëngaloo parce que xam nga nit ñi hmm. ñun conception wu Sénégal la ñuy dund parce que man fii laa xam. Ah, ah, xam nga da ngay takk jabar indi ko doone damay takk jabar ñëw bu guddee. bu bu xëyee suba nelaw nga baleel ko raxatal ko toggal ko yekkal. salaire yi mënoo nga jigéen buy nàmpal doom li ki doon wax sàmm est-ce que ma jëkkër ji daf ko waaw mais kan a koy def. que am na fi. su ko ah. neexee mu fayeeku ko de. xam nga loolu da ngay dugg ci. su ko neexee mu fayeeku ko fayeeku la day. mais du obligation mu mooy neexal waxtaan. Mm-hmm. mooy dañuy waxtaan gis-gis nag dafa firi boppam. waaw ah, mooy gis-gis kenn ku ne da ngay indi sa idée. exactement te kenn mënta muus la ëpp say at ku ne li nga xam ngay wax. dëgg la ah. serveur bi xool leen ko uh-huh. takk la indi li ci kër. waaw li war mooy nga toog. dëgg la yaay. say am na compromis daal. y a des compromis. waaw mooy da laa war a indi li ci këram. mais xanaa bu la joxee dépense te nga man ko. di nga dugg togg ak. ayca jox leen ma jox leen ma téléspectateurs yi s'il vous plaît ñu ñu mën nañu war ci numéro bi. yaa yegal yaa yegalal lalal ko néegam. Mm-hmm. boo mënee nga togg yàq ki nga am mën na la koo defal mais te yow jigéen di sa devoir mais am na loo xamante ni soo ko defulee da ngay fayir ci sa mission. Hmm. parce que tey su ngeen indee polygamie bari na ci ay facettes yoo xamante ni. manque def sa devoir ci sa biir kër bari na ci lu mu contribuer ci loolu. Hmm. moo tax góor gi tam takki. waaw non du toujours dama lay expliquer du toujours euh, Benoît xam nga li tax mooy li la war yow jigéen mooy yéreem yi ku koy toppatoo. Hmm? yow lépp daal nan la koy defal yow sa jabar. <laughs> yéreem kan. sa sa yére yow sa yow kër gi. ku la koy def sa jabar du la ko toppatoo même su amee léger bi koy fóotal. mais moo ko war a xam nga lan mooy problème. Ah, wesh ñu bare ñu ngi sëy dugg si sëy te xamuñu lan moo tax ñuy sëy essence su sëy. eh oui ma ka mu nekk ku góor ki ka mu eh, nekk ku jigéen ki. yaay mooy mu nekk dafa baax di ngeen fay di ngeen fay de. xoolal de la ko war a def fay dafay am fay dina bari de kon nañ fay ku jigéen ci ko yére yi. waaw. fii ci suñu réew laa wax. noonu ah. olof. ñun nit ko ñuul ne ci réew mii nuy wax Sénégal. Ah. xam nga lu fi baaxu jigéen nag. ñu jàng togg. waaw mën a togg di toggal sa jëkkër di lal. waaw baax na defal ba mu baax. service yi toppatoo sa kër. Oh. ba mu am ah, hygiène bu baax raxas bale fobeere trop tey nag jamono dem na ba lépp mën a tuloo ko yaa ngi daw di wuti waaw man su ma demee daw bu wuti ki may defaral lépp ah boo yéene dëkkër yëpp de am na ñu ko ñu koy def mm-hmm. nee xalaate waaye loolu nag aussi mi ngi dépendre ci façon góor bi ngay àndal mm-hmm. parce que am na ñoo góor ñoo xam ni seen kër xorom sax jigéen du ko jënd mm-hmm. waaw y a des hommes qui comme ça am na góor ñoo xam seen kër xorom bi ñuy mottulee jigéen du ko jënd nanguwuñu waaw su weer dee ñoo fay mindaan yi mais soo ko dee seet ñaata la nu ay jéggi jéggi mais mais te te sëy yooyu na yàlla baal boo xoolee du du yàgg de. ba pare teg ci. du yàgg du yàgg parce que xam nga ki nga xam ne da lay defal yëpp lépp moo la koy defal. et il prend soin de toi soo fayiree tuuti rek da koy metti ah mais fekk daf ko doon def peut-être def ko ak xol. quand je dis non quand je dis soo fayiree ki nga xam ne euh, boo sëkkatee mu jël la yóbbu la hôpital ravitaillement du manqué togg bu jotee mu jëlal la. ku lay toggal jëlal la ku lay mel. na bon bi di raxas ki ak ci kër gi. Ah, kooku boo fayiree tuuti ci kër gi. tuuti rek da lay mere. te waruloo fayi un homme qui prend soin de toi ngay ah, fay. na ay moments yoo xam ne yéen ñaar la yéen loolu moo war góor mais fayir a comprendre. non na nekk fayir si ménage toggal defal la yëpp pour sax nga yëkkati bool bi teg ko ne kaay reer baa ngi nii c'est un problème. Sofia ma digal la. bëri na fi sama ma wax la ma dolli suñu ko dee defar sax am na foo xam ne yow rek yaa fay dem du ma daw ci gémmiñu àll bi. dëgg la yaay dëgg la. am na foo xam ne jéeg bi rek ko koy matale. dëgg la waxin la ne dégg la laaj. dëgg la yaay mais lépp damay jël téléspectateur yi Marie si may ma baal ma jël kii baal ma jël kii baal ma jël kii yaay yaay yaay dina ñëw ci loolu. fi muy léegi 88 628 89 90. te góor yi dugg loolu dañoo bëri fii Sénégal bëri na góor yoo xam ne ils ne travaillent que pour leur famille te mënuñoo am sax li nga xam ne moom mooy jàmm ci seen biir kër mm. mooy waral góor yu bëri bu ñu wàccee dañuy xaabaabal ba 22 heures ñibbi si bëri ci ay jigéen yoo xam ne aussi mm. bu ñu wàccee mm-hmm. sum ndeysaan loolu lay dund <laughs> bu ñu wàccee il ñu jaar dem after work woo Sophie woo mm. Mata woo lii kaa ñu jaar au bord de la plage toog naan verre def lii te fekk ne am na lu lay xaar sa kër parce que nous sommes c'est ça nga mët rek femme mariée bu la ci woo ne la after work nga ne ko ñibbil da nga yor njaboot. ànduma ak yow 88 628 92 90 waxul dëgg de waxul dëgg rek salaamaaleykum allo. amuñu retour s'il vous plaît waa régie Maba mes respects salaamaaleykum allo bonsoir allo. 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 salaamaaleykum on l'a perdu ayca ñu ngi ciy jégalu ñu ngi xaar ñeneen 88 628 89 90 tim gis-gis ah euh, <laughs> sur sur Facebook Bichkan nee na ñu bàyyi leen ak seen ay salaire bu ko laal yaay nee na nga bàyyi xale yi jigéen ñi ak seen salaire yi bu cee comp di fay jànk yi bu cee comp di fay fóotkat yi mënta ne d'accord merci beaucoup Adja Adja yow moom fi nga taxaw xam naa ko kenn du la ci faale am na sax ñuy teg loo gagné lu ma gagné ngeen tey euh, Adja Adja nee na franchement avoir euh, même soo amee di dix euh, bonnes seen kër il faut pas warul tax jigéen toog il faut ngay ñafe il faut ngay ñafe ji di dem di liggéey d' accord on est d' accord mais booy liggéey rek na la jëriñ jëriñ ñi la jege c' est important. Mhm. parce que tamit euh, côté boobu muy waxee xamalal la. Mhm. góor defal la lépp. Mhm. mais ñaanuma ko yàlla. comme ni ko Safia waxee fay am ñu fase la. nga amoon liggéey bu baax jàng ba am lépp am liggéey na war a liggéey nga toog comment tu vas faire. mu ne. da nga ne ñu utal la ñetti bon. utal la lépp. mais boo fayree lu tuuti rek. mun na am sa jëkkër fase la fekk bi mu lay utal yooyu yëpp yow da nga abandonné sa liggéey abandonné sa jàng abandonné sa yëpp léegi bu ñu la fasee nooy def dama wuti jiwaat liggéey moo tax man pour man ak sa retraite est-ce que yaa ngi koy xalaat non je parlais même pas de ku ku ku bàyyi liggéey mën ngay liggéey en même temps y' a pas de problème. ah ok non loolu laa non li Adja Adja wax ne jigéen ñu la defal si àdduna man loolu laa gëm da nga war a liggéey pour ton futur c'est très important mais fii ah, ah. il faut dire aussi que am na góor yoo xam ne dañuy def loolu yëpp ba pare téye sa sa sa say waajur sa njaboot li nga war a defar say waajur am na am na fi ah nga mm. xam ne mm. dañuy defar seen goro mm. dañuy defar seen goro mais seen i jabar góorgóorlu wuñu comme c'est trop facile gis nga loo xam ne da nga ñëw rek acquérir ko noonu bokku la koo xam ne dafa sëy si metti lool muy jóg di daanu ak jëkkëram di jóg di daanu ak jëkkëram ba affaire bi taxaw bu taxawee moom mooy sàmm tout ce qui est richesse foofu mm. noonu daf koy sàmm parce que du ko bëgg a du ko bëgg a pasar pasare parce que am na fu mu jaar boobu mm. la ku ñëw fekk lépp pare non c'est vrai donc loolu góor nga war a doon sax quoi loolu góor nga war a doon sa jëkkër bu motalee lépp mm. yow waroo am faay boo xam ne sa jëkkër dina si am pincement au cœur. mais yaay ñooy ñaan nga ñu fekk day pare mais mais tamit mu defal la yëpp. taxul tamit ñu coincé la si yenn côté yoo xam ne di lay imp am na ñoo xam ne dañ lay defal yëpp. ba pare a moom moo ñu sonal. c'est-à-dire comment les gens te regardent. Mm-hmm. yaa ngi ci 4 x bu nice. Mm-hmm. booy génn tout le temps tu es bien sapé perruque